mbokk yi ak xarit yi ñooy nuyu di leen jaajëfal ci teewlu bi seen émission face to face daal di dellu si waat ñu ngi fii nag euh, pour la première fois en tout cas dans cette émission ñu ngi fii euh, cité Faye Sall et puis également pour la première fois euh, dans cette émission Khoureyssi Thiam ancien ministre de la République sous maître Wade ancien député également nekk tamit leader parti mouvement bi di agir pour le Sénégal jamono ji gis ngeen ne créé na. débat créé na fi buzz parce que euh, jóge na parti euh, parti démocratique sénégalais daal di dellu si waat euh, ñu bëri nag def ci ay commentaires yu bëree bëri bëri tey ñu namm waxtaan si ak moom laaj ko lu waral dem beeg dikk beeg yooyu je pense que moom <laughs> terme boobu sax du ko neex en tout cas mu mel ne daal tey li ñuy waxtaanee dina war a am solo fii nag la dëkk ñu ànd fëgg xool. Comment il va nous accueillir Bonjour. Monsieur le ministre, vous allez bien Ça bien, merci. Merci de nous accueillir euh, monsieur le ministre euh, euh, ñu dugg directement ci sa portrait. Euh, sa date la wala nga ko bëgg a nëbb. non non non ah, allah alors sa réussite bu gën a mag mooy yow yaay premier docteur d' en sciences politiques. Sénégal Sénégal accord alors sa sa échec mooy en même temps quelque part sa déception ah. mooy en 2002 conseil régional. jongante ñu perteloo ma ko la ko mais kooku moom danga ma koy téyal foofu rek ñu du ci biir émission bi. ñu toj yax bi. alors euh, ba ca des mooy euh, sa plat ak sa musique euh, préférée mooy suppu kanji. suppu kanja suppu kanja. laajte xàkku. waaw te sa musique préférée mooy mooy mooy mooy musique foofu gis naa ñuy mer <laughs> alors euh, monsieur le ministre euh, euh, fu ñu jeexalee portrait bi mooy jamono ji lan moo la gën a énervé ci ci ci réew mi lan moo sa kudgal ci réew mi c'est une question à, à, francs. Oui. <laughs> Mais il a beaucoup, de petites choses, je uh -huh. Comme l'an, comme l'an, tu en parles, Mathieu L'emploi des jeunes. Oui. L'emploi des jeunes, mais qui trop. Uh parce que ñu ngi fii amuñu liggéey bare nañu lool te diggoon nañ leen ko mm-hmm. sotteegul mm-hmm. l' électricité mm-hmm. électricité bi ni mu yokkoo métti na trop ñàkkam ndox mi ñetteel bi ci àll bi laa dëkk sama mbokk yaa ngi ñaxtu seen gerte yu jëndul ba léegi lii yëpp daal su ma doon am li ma ci wax danaa ko coow baax alors euh, mun na am ñu am luñ ci comp ci biir émission bi euh, léegi mbokk yi ñu àndandoo dem xool suñu partenaires yi daal dugg si waat nag euh, ci biir euh, émission monsieur le ministre le plateau est là-bas je pense <laughs> merci, Viviane balaa may def dara miso lay naan. moo neex. ku ministre Khoureyssi Thiam yaa ngi jóge parti démocratique sénégalais ba nga fay jógee sénégalais yëpp fàttaliku nañu ne danga meroon trop euh, fan yi euh, nga dellusiwaat euh, ci même parti démocratique sénégalais. sénégalais yëpp nag bëgg nañu xam bien que dégg nañu sa conférence de presse mais bëgg nañu xam euh, lu tax nga dellu siwaat parti démocratique sénégalais. jë jëf li ma mën a wax rek mooy bi may jógee parti démocratique sénégalais di dem dama amoon ay naqar. Mhm. naqar yu bare. comme lan. nekk na ministre. en 2007. Mhm. ñu jëm ci élection législative. ñu jël sama adversaire politique. Mhm. jox ko cinquante millions. kan la woon. du ma tudd turam. mais sama adversaire bi ñëpp xam nañ ko Tambacounda. ñu ñëw ci élection présidentielle 2012 même adversaire bi premier tour ñu jox ko 75 millions. diggante deux tours yi ñu dindi 25 millions yokkal ko ci muy 100 millions ci présidentielle yi. ñuy demeti def ay liste ma d' accord ak maître Abdoulaye Wade. ni ko dama bëgg bokk ci liste nationale pour mën jàppale parti bi. mën naa bokk dans les 15 premiers au lieu que ñu dugal ma ci 15 premiers yi ñu yóbbu ma 25e position. mu wóor leen ni vingt cinq position du ma jàll mais comme demee ne noonu mais ma bàyyi tranquillement lii moo tax ma jógee dem te ba may dem expliquer naa ko bi ma demee président Macky Sall wax ñépp dégg ko mu ni la patrie avant de parti kooku képp kuy sénégalais bu bëgg dimbali réewam boo déggee wax ju mel noonu da nga jóg ni xaaral ma dem dimbali kii ndax patriote la ci kaw boobu le ci laa demee ni man damay fekk waa APR mais ba ma jógee rek dafa am benn bouclier bu ñu def sama kanam. d'ostracisme ni pas question. kan moo ko def bouclier ah, ay ñun ñu ko wër rek. mais pas moom euh, président Macky du président Macky ñi ngi leen di woy ay faucon. 22 mm-hmm. mois ñaar fukki weer ak ñaar. Mm-hmm. toog naa di xaar pour ñu bunt bi ubbi wuñu ko ci diggante bi ma ni du ma bàyyi sama nit ñi nga xam ne doon nañu liggéey ak man ci biir PDS des années durant may gagné ak ñoom ñu jëm ci élection locale du ma leen jàppale pour ñu mën a jàll. lii moo tax ñoom bi ñu ñëwee nii dañ may jël si ma ànd ak ñoom ñëw na ñetti yoon nag moo ko ñetti yoon délégation communale bu Tamba ñëw na fi may leen déedéet des na il faut ngeen discuter ak les gens du département ba ngeen d'accord ñu ñëwati ku jóge foofu le président des président des commune rurales de Tamba jóge fa ñëw seet si ma ni ma da nga dañu bëgg nga ñëw ma ne ko yow déedéet tant que ànduloo commune bi ak tous les PCR du département jarul ngay ñëw te nga demander l'avis de la direction du parti ba mu demee waxtaan ak ñoom ñu def une délégation ñëw seet si ma ba ñu ñëwee seet si wax ma nit nag sa genn wàll nga moom beneen genn wàll say mbokk ak say xarit ñoo ko moom ba ñu insister rek may leen kon baax na léegi dem leen seen direction du parti ba xam du ñu wax direction du parti bi ni ñoom d'accord nañ ci direction du parti bi ñoo déplacé ñëw sama kër fii mm. ni ma xuréchi lu ñu bëgg mooy nga ñëw ànd ak ñun mm. d'autant que ñi bari ci PCR yi wax nañ ñu ne xuréchi boo ñëwlee du ñu gagné suñu commune rurale mais loolu mu dayul sa yaram te doyu la nga xam ni baaxuloo ci laa and ak ñoom le lendemain ñu dem a la direction du parti à déclaration ñu dem si waat naa ci biir parti bi. monsieur ministre euh, ñu ñu ñu desaat tuuti ci 22 euh, mois yi nga fëgg buntu euh, alliance pour la république di formation politique bu président Macky Sall te ubbi ñu la ko est ce que ci 22 mois yooyu yow toog nga ci ak le le ndeyu mbili gi di di Macky Sall en personne. non toogu ba toogu parce que dama ne woon man bu may dugg ci parti bi il faut mu wax ak Macky moom moom parti bi. Mm-hmm. moom lay ñëw pour jàppale. mais comme gisuma ko pendant 22 mois ci laa jël décision bii ñu ma jël see ma ne baax na nañ leen ànd. Mm-hmm. dem mais yow ba nga décidé ne da ngay dem euh, euh, alliance pour la république. parce que monsieur le ministre ni ma la ko waxee ba ñu préparé émission bi mooy euh, lii occasion la pour yow Khoureychi Thiam ministre. ancien ministre de la république euh, leader politique bu ñëpp xam nga waxtaan ak sénégalais yi ñu xam dëgg-dëgg euh, say motivation ak say ambition lan la donc euh, ba nga jëlee décision ne da ngay dem jàppale président Macky Sall décision personnelle la wala dafa am ay ay kilifa yu nekk ci alliance pour la république gis ne yow tey valeur ajoutée nga ci ñoom ñu ñëw dox si la wala yow yaa jël si naka la demee daal ba nga toogee am ambition dem. mais wax naa la sànq ma ni li ma génnee PDS. ay frustration la. Mm-hmm. ay naqar naqar yu bare yu tegloo. Mm-hmm. tegloo lool lool lool. Mm-hmm. nit nag nit rek la. ba ñu bare. ci laa daal dinaa bàyyi dem Macky nee na ñëw leen jàppale ma. kuy sénégalais kuy patriote. waata ba nga dégg waaw. ni kuy patriote rek na nga ñëw jàppale ma. loolu taxoon ma dañuy dem jàppale ji ko. mais comme sottiwul gisuma ko. bi ay nit ñëwee jël si ma pour ma ànd ak ñoom dama ànd ak ñoom dem. mais xam nga monsieur le ministre euh, yàgg nga dégg ñu naan Khoureychi Thiam c'est un éternel transhumant parti démocrate euh, parti socialiste nga jiitu nga njëkkee euh, doxantu dugg parti démocrate sénégalais gannaaw nga nga nga mer claqué porte ya fëgg buntu alliance pour la république ñooñu bañ la ubbil nga nga nga ëlbatiku waat parti démocrate sénégalais nangu nga ne transhumant nga wala Dakar dem dikk nga. du ma du ma dem dikk. Mm-hmm. parti socialiste la mos a bi ma nekkee étudiant j'étais le responsable des étudiants UPS man Daouda Sow bi mu fi jógee man maa ko remplacé bi may bi may bàyyi Moustapha Niass moo ma remplacé ensuite la jeune génération est arrivée man maa dem ba terminer sama carrière de fonctionnaire international en France ñu indi ma fi affecté ma fi toog naa Dakar deux ans et demi je le dis très haut et fort ñii ma koy waxal ñi nga may dégg te xam nañu ko deux ans et demi mënu ma gis Abdou Diouf mënu ma gis Tanor mënu ma gis suñu responsable régional mu Cheikh Sissoko mm-hmm. ma bind leen ni bàyyi naa parti socialiste mm-hmm. parce que du ngeen ma yóbbu àjjana li ñuy doxal ci kaw suuf rek la ma bàyyi toog ba ma toogee ab Ablaye Wade moo yónni ñu jël si ma wutiwuma ko moo yónni ñu jël si ma Lamine Thiam mi ngi may dégg questeur assemblée nationale moom la ñu yónni mu ñëw mu ni ma nañu dem kenn la ñu yónni ba mu ñëwee ma ne ko déedéet yow tuuti nga ci trop mm-hmm. nga baal luy tuuti nga ci ba mu demee wax ko ñu Ablaye Wade Ablaye Wade du yónni Lamine Thiam Lamine Thiam wax ak man ma ne ko nañ dem seeti président Ablaye Wade boobu Ablaye Wade falagul en 1998 précisément le 23 mars ci laa dugg boobu ñu Ablaye Wade ni ma bismillah man maa la soxla département Tamba aw ma fa cadre ñëwal nga ànd ak sama cadre ya fa nekk cadre politique ya fa nekk aw ma cadre intellectuel lii moo ma dugal lii moo ma dugal biir PDS du ma transhumant dañ ma jël si bii aussi bi ma amee naqar Ablaye Wade dama génn fenn lañ mën a wax damay def transhumant mooy bi ma ne damay dem APR te kooku Macky moo def un appel de la patrie avant le parti ku ma bëgg a dimbali mën nga ñëw jàppale ma mais je me comme patriote mën naa dem fekki fekki ko mais ba ma gisee ne lii mu wax ak ñii ko wër méngoowul ñi ko wër bëgguñu ñeneen ñoo ñëw jël si waat ma de dañu ñëw jël si ma de demuma mm. y a pas de transhumance transhumance ñu ngi koy wax ci kaw ñu ni kii kat joge na fii dem na ci nguur gi parce que lu yaakaar na dina fa am avantage actuellement PDS PDS mi ngi traversé le désert dañ ma jël si ma fekk leen ci désert fekk leen ci difficulté damay ànd ak ñoom ñi ma jël si dañu ne boo ñëwul du ñu gagné Tamba comme du ñu gagné Tamba ñoo jàppale ñu waa direction du parti xam nañ ko Macky Sall député mi bi jàll bi jàll yi jàll en 2012 am na loo xam ne def naa ko su ma ko ci defuloon de Koupantoum ba Bakel benn député APR du am. man maa leen jàppale ñu jàll. fii aussi xam nañu lan laa tekk ci parti bi je le dis avec beaucoup de modestie. mais xam nañ li ma tekk ci parti bi. Ah, mais euh, monsieur le ministre est-ce que euh, euh, parce que ku mel na yow ak sa vécu politique sa sa parcours sa expérience euh, ak i tamit poids bi nga am est-ce que euh, oyoful trop nga dégg président Macky Sall woote la patrie avant le avant le le parti ñu bëri jàpp ne c'est un vœu pieux ci làmmiñ bi la yem. Euh, est-ce que yow warloo woon xaar davantage comme ñeneen parce que gis nañ président Macky am na ay kàngam yu mel na yow ñoo xam ne moom moo leen jël sil boppam est-ce que yow warloo woon xaar au-delà de cet appel là waroo woon xaar président Macky doxal boppam ay jéego ñëw jël si la mais euh, yow yaa nekk demande yow yaa dem fekk ji ko. <laughs> non non non bi mu waxee loolu ma dégg ko ma ni waaw dinaa ci dem mhm. mais dafa fekk ni ma am ñu bari ci dëkk bi. Mhm. ay mbokk ay xarit ñun ma xuure ci demal ci Macky demal nga jàppale ko Macky sa bokk la demal nga jàppale ko lii moo tax ma foncé dem jàppale Macky mais su yemoon ci la patrie avant le parti rek damay toog ci sàmba ba mu wooma mais est-ce que woon euh, bala nga woon de mënoo woon euh, am ay information bala euh, kii jéem a toog ak moom wala jéem a toog ñu ñu magam parce que yow donc monsieur kilifa nga. dama toog ay ay kilifa ñoo wax ak ñu ne ma demal ci mag yi. Mhm. ay kilifa. yu bokk ak moom. kilifa yu mag ci réew mi. Mhm. mais bokkuñu mais bokkuñu APR. kilifa yooyu ñooy kilifa yooyu bokkuñu APR bokkuñu ci benn parti politique. non c'est je est-ce que woon xaar ba am ay kilifa yu bokk alliance pour la république ñoo xam ne. ñoo comme comme comme ça se fait aujourd'hui ndax président Macky Sall ci ginnaaw am na ñu bëri ñoo xam ne jël na fi ñoo xamante ne sax nit ñi fàtte woon ku mel euh, ku mel ay Assane xaw ma wala de la xaw ma ñooñu xam ne sama genre sama sama genre yi fekkewuñu ay ay <laughs> ba fi nekk ministre boobu xëy na ay dañ doon maq suuf ak yooyu nit ñi fàtte nañ leen mu mu yëkkatiwaat leen juddu kiiwaat leen besalaat teg leen donc donc li mu uti ji ay Assane Diop yooyu te yow nga nekk sénégal sénégalais yi xam la man je pense que waroon nga peut-être xaar ba moom mu euh, woor la boppam peut-être. Euh, pour éviter déconvenu bi. oui peut-être bien mais ci kaw loolu am na nay nitam yoo xam ne wax nañ ci rajo yi. ku ci mel na mbay Ndiaye qui a été ministre de l'intérieur. Mhm. wax na ni Khoureychi Thiam. Mhm. président Macky Sall nee na moom moo ko soxla. Mhm. na ñëw amal na ko njëriñ na ñëw liggéey ak ñun. wax na ko ci beneen waajur El Hadj Malick Guèye. qui a été député de Latmingué. mu ni Macky Sall moo ko soxla na ñëw liggéey ak ñun. ñu mel noonu buñ la wooyee. ci turu Macky Sall mais da nga leen wuy ji mm-hmm. mais ñoom ba ñu defee seen appel bi ba ñu dañuy dem ci ñoom ci la nit ñi tëj bunt yi mm-hmm. mais mais man euh, bala maa ñëw na ci quand même courage bi nga am te loolu wax naa la ko orante te li ma gëm la euh, mooy euh, tey jii sénégalais yi am na si ñoo xam ne jàpp nañ ñu ne sa delluwaat PDS na nga fa jógee ak na nga delluwaatee ak tamit li nga wax ne dëgg-dëgg 22 mois ngi nii mooy fëgg bunt bi kenn ubbilu ko que en fait Euh, la nga wàccu woon nga lekkaat. déedéet déedéet. Hmm. wàccu ma wàccu ma lekkaat de. Hmm. ay nit buñ la jëlsee. Hmm. ci sa kaw mer dëfal la. dëfal la dëfal la ni lii passé na passé na bàyyil te ngay jullit mais da nga leen fekk si lu ñu bëgg. wax naa la sànq ma ni nit yow sa genn wàll yaa ko moom beneen genn wàll say mbokk la mais am wocc bu nit wocc di ko lekkaat déedéet kooku du ma ko def. Euh, euh, parce que leen am na de. man PDS laa xam. ba ma jógee bañ ma jël si ba ma bàyyee PS. dama nekk libéral. Mm. nekk libéral 98 ba ni Ablaye Wade daanoo ñu ànd ak moom daanoo it ba bi ñu ma jël see je liberal resté libéral bu doon communiste du ma dem ci moom bu nee patrie ak lépp du ma dem ci moom. Mm-hmm. amul lu ñu wàccu di ko jëlaat déedéet. Mm-hmm. Euh, mais euh, aujourd'hui euh, la la woon li taxoon nga mer ba bàyyi Parti démocratique sénégalais muy frustration yooyu. Ah. est-ce que aujourd'hui Euh, leer na la ne ndax loolu jóge na fii wala boog doo ñëw gisaat lu pire loolu. Euh, leen am na de. Mm-hmm. man de dama jàpp sa bopp ni jullit la mm-hmm. du ma jàpp mer jëmee ko ilaa yow mi mm-hmm. yàlla bëggul yonent sallallahu alayhi wasallam bëggul kilifa diine yi bëggul nit boo amee loo naqari wax ko. mais boo ko waxee bàyyi mu jàll. waaw metti woon na ma ca saasa wax naa ko. wax naa ko ba àddina yëpp ko. ñuy dem di dem ba mu yàgg ñama àndaloon ñëw ni moom léegi jeex na bàyyil. bi may ñëw ñu jël si ma pour ma dem kilifa parti bi ñëw ni ma Khoureychi kaay ñu ànd ànd d'accord nañu ñëwal ñu ànd mais loolu doy na mm-hmm. wax nañ seen biir wax ak Oumar Sarr wax ak Ablaye Wade mm-hmm. mais mënuma loolu leneen ni aywa bismillah nañu ànd. Mm-hmm. monsieur ministre am na euh, euh, ay euh, ñu nekk ay libéraux yoo xam ne yéen a bokk PDS ñu nekk Tamba. ñoo xam ne euh, euh, sawaruñu ci sa dellu si ak i tamit euh, ñi nekk fii ci ci ci ci seen formation ci PDS bi fii ci ci Dakar. Mhm. xam naa si ñu bëri ah ku ma si naqar ku ma ku ma soxla ma neexul rek ma ma tudd sa tur fii en direct. Mhm. donc am na si <laughs> ñu bëri ñoo xam ne xam naa ne wax bir na ne sa sa dellu si sawaruñu si parce que ñii jàpp nañ ne. amaloo leen benn njariñ ci biir parti bu sa sa dellusiwaat bi gisuñu benn njariñ boo xam ne amal nga leen ko ña ca des euh, am na daal ay ay kàddu yu ñagas yoo xam ne teg nañ ko euh, yow sama kilifa nga te euh, dama bés ni dama laa boole ci sama bopp moo tax kàddu yooyu du ko fi répété donc mu mel ne sa sa dellusiwaat PDS bëri na ci bu dee am na tamit ñu nekk ca kaw ay Oumar Sarr ak ñoom Fada ak ñoomin seen waa sommet ba ñoo xam ne bëgg nañ la am na ñu nekk ci suuf ñoo xam ne la ñuy ruumalaat la la ñuy togg la muy xeeñ neexul bu leen neexee la ñuy toog bu mu xeeñ bu mu xeeñ lu neex man mm. kooku ça ne m'intéresse pas mm. li ma intéressé tey mooy la reconquête du pouvoir mm. bu doon sama sago élection yu ñu jëm locale yi PDS daf koy gagné bu ñu jëmee 2017 PDS faluwaat ma bokk ci ñii faluwaat ñee di wax nag di siisaate ci biir partie bi mais xamante nañu bu dee Tambacounda Tamba xamante nañu de bu dul foofu ci biir Sénégal xamante nañu ku mën sa morom xam nga ko ñii fii ci Dakar du coow ko wax safuñu ma xam nga ñan ñoo ma safam direction bi nee nañ Khoureychi ñëwal exil bëgg nañ la jël si nañ la militant yi nekk Tambacounda def délégation juróom-ñetti ci rurales yi ay nit jóge fa ay responsable commune bi ay responsable jóge fa ñëw ni ma Khoureychi kay ñu ànd damay ànd ak ñoom ñoo ñu saf nañu ma mais ñee nga xam ne tekkiwuñu mënuñu xamuñu lu dul kañaan ak ñuul biir di wax lu leen neex sama yoon ci li ñuy wax man lii may def danaa ko def sur le terrain. Mm-hmm. bala maa ñëw nag ci euh, jamono ji euh, monsieur le ministre naka nga nar a jàppalewee euh, parti démocratique sénégalais en tout cas joxe sa contribution ci li nga xam ne mooy seen mëbët di reconquérir le pouvoir mooy man sama benn xarit boo xam ne ku la fan la yow. nee na ma man daa bis ba toogee ak euh, le ministre Khoureychi caam laajal ma ko ndax dama ragal fii Sénégal la damaa ragal euh, euh, mu ñëw pàdd ñu ñuy ootal ko tëgal tëggal ko Bercy woo ko ba mu ñëw ootal ko ba mu ñëw ba mu dugg ba mu dellusiwaat parti démocratique sénégalais ñu koy jéema a toroxal di ko jéem a naqaral métital ko te bii yoon moom sañoo toog gënaat PDS moom fi mu ne nii. <laughs> leen dinaa la ko waree. Mm. gis nga mbéy mbéyul kanam. borom a koy faj borom moo koy faj. dëgg la ku ma ci bëgg a def loolu mm. da nga ma nga déglu rek nga déglu mm. la vie est un combat bëri la te combattant waaw yegguma ci loolu de boo bañee bëri na jarul nga dugg ci dàng bi bul dugg ci dàng bi eh. saaga yi lay saaga boo ko bañee bul dugg ci politique dëgg la xam nga ku tekkiwul rek ku tekkiwul rek lañ dul wax dëgg la mais ku tekki du may tekki naa sax mais ku kuy wut dara mm-hmm. wala da nga jóg pour jàppale mm-hmm. téeméer ni ñu jóg taxaw ku yàqal la mm-hmm. mais doo doo leen gestu. Mhm. da continuer rek ba fa nga jëm. Mhm. yàlla may la nga egg fa. Mm, mais nag aujourd'hui monsieur le ministre. Euh, euh, yow je me dis que dellusiwaat nga PDS. Euh, mais euh, à mon avis j'ai envie de dire contre vents et marées aujourd'hui est-ce que boo amee loolu naqari PDS est-ce que sañate ngaa génn PDS ah je ne suis pas un homme libre PDS c'est un parti libre mhm. un parti démocratique un parti libéral dugg ci boo bëggee mën nga ci dugg mën nga ci génn mën nga ci dugg mën nga ci génn mais nag lenn am na lenn am na de suñ ma xoñañalee bëgg ma la jël di dóorante guddeeg bëccëg may damay dugg ñu ne ma du fii duma ci dugg mais dugg naa bu may dóorante damay dóorante ak ñoom ci biir ñu bare ngiy soow fii la ñu mën Tambacounda ñoom ci seen région ak seen gox munuñu ko ñoom xam nañu ko te ñu ngi jëm ci élection dana leer parce que parce que euh, euh, ah, euh, man dama jàpp ne est-ce que aujourd'hui dina am benn relation de confiance entre yow Khoureyssi Thiam ak i tamit waa PDS ñi nga xam ne nii meroon nañu ci anam ya nga génnee ci seen parti ak i tamit ni nga ñëwaatee duggaat est-ce que Euh, dinañ la wóolu duñ ne collège mi dafa dellu si parce que bu doon Macky Sall ubbil na ko bunt bi yaatal ko du ñëwaat ci ñun et que à tout moment su ko Macky woowaatee mun nañu mun nañoo kat ji fee dem delluwaat ci Macky <laughs> xam nga euh, li nit ñi di wax yëpp yëpp su ma nee dama ciy tontu. du dem. du sotti. dëgg la mënuma ko. Mm. su ma noon def bés bu nekk conférence de presse di jéem tontu nit yi mhm. du tax mu jeex mhm. danaa leen bàyyi ak seen conscience man ma des ak sama conscience mhm. bundu xataal beeg yooyu amul benn njariñ PDS dafa war a gañewaat euh, euh, le pouvoir noonu lañ si jàppale naka nga jàppale PDS ba ñu reconquérir le ah, pouvoir gox ba ma nekk Tamba la bokk Tamba am na lu ma fa mën il faut additionner ñii di ñëw di jàppale PDS dañuy permettre PDS ñu gagné. Mhm. on a huit communes rurales. élection législative bi. maa jàppale APR ñu gagné huit communes rurales mhm. bi. maa leen jàppale ñu gagné commune bi. maa leen ci ñetti département yi ci des. am naa yaakaar ni su ma demee danaa jàppale ña fa nekk encore pour ñu gagné ci commune rurale du may nañ gagné lépp de mais lépp lu ñu mën def pour gagné nañ ko def pour ñu gagné. d' accord alors monsieur bala ñoo jeexal na ci PDS parce que loo rek taxul euh, ñu ñu waxtaan ak yow mooy euh, aujourd'hui est ce que euh, dellusiwaat bi nga dellusiwaat ci PDS sànq ñu nga ko. mooy da ngaa ñëw ci PDS fekk PDS nekk ci ay difficultés. Mhm. Euh, ils sont en train euh, j'adore cette expression là de manger. Euh, le pain noir le pain noir <laughs> ah, donc dëgg-dëgg nga ñëw ci moment boo xam ni moment bu doy waar bu nekk bu difficile bu metti Omar Sarr di di di coordonnateur ba mhm. il est contesté de partout am am na ay leaders yu nekk ci biir parti bi ñoo xam ne ñi xaru nañu. kenn kenn déggatu leen ña euh, ngay bokkatu nànk-nànk ñem sañatuñu sax lekk seen milliards yi ndax bañ ko leen yóbbu ca CREI yi euh, ñii ña ngay génn di créer seen ay mouvement politique donc yow aujourd'hui ñëw bi nga ñëw ci ci ci ci ci ci parti démocratique mu dellu euh, dellu si bi nga dellu si lan la mun nekk ci yow comme gain politique est-ce que c'est pas risqué est-ce que risque est-ce que tey la woo sa avenir politique sa carrière bala ma ciy tontu sax dama bëggoon indi tuuti précision mm-hmm. xam nga nee nga ñemeetuñu lekk seen milliards. Mhm. mais kan moo leen ñooñu am nañu milliards. Mhm. ah ñun ñëpp Sénégal jàpp nañu ne am nañu ay milliards. Ah, bu ñu jàppee te amul bu amuñu milliards nañu bay xam nga le drame ci Sénégal. Mhm. nga baal ma de le drame Sénégal. fii dañu lay condamné ba la ñu lay jugé. waaw malheureusement y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. nit ki. bala ñu koy condamné il faut ñu ko ci juge juge pour ñu prouver ni kii mm. moo def lii ñu soo koy condamné mm. mais Sénégal moom dañuy jóg rek ni kii moo def lii moo sàcc lii mi ngi yore milliards yi nañ ko jàpp nañ ko tëj nañ ko fetal te xamuñu sax lu xew yàq turam ci dëkk bi mm. man defoon nañ ma ko ci affaire licence de pêche yi mais ba ma waxee dafa teel a leer nañ mm-hmm. donc ñii ñuy wax ne dañu yore milliards yorewuñu milliards dañu mel ne man c'est de pauvre diable ñi ci ëpp bokk ñi ma xam ne ay c'est de mm-hmm. su ma duggee ci ci PDS PDS nekk ci difficulté yu mel nii. Mhm. mais dama bëgg ñu góorgóorlu rek ñu génn ci difficulté yi. Mhm. man toogu ma PDS dellu pouvoir de damay ñëw jàppale PDS ñu seet naka la ñu def pour dellu au pouvoir. kon Tito aussi sa avenir politique. non pas du tout parce que PDS actuellement il n'est plus attractif le le ah, pour vous le PDS n'est pas attractif pour moi il l'est. Mhm. ñi nga xam ne ñu bëgg a bàyyi. ñooñu bu ñu demee xëy na ñu wooyee transhumant. mais man man ma ñëw ci parti boo xam ne mi ngi nekk ci difficulté yu métti. <laughs> ñu naan naka la ñuy def pour génn ci lii wala naka la ñuy fayee nit ñi pour ñu dellu seen région dem campagne ci situation boobu la ñu toll man jëlee de fexe ku ma xam da nga indi sa wal pour jàppale ma ñu mën liggéey Tambacounda. ah d'accord alors euh, euh, ba ngay génn euh, PDS ou bien avant bon je je m'en plus tellement. Ah. kii mais je sais que créé nga fi benn mouvement. boo tuddee agir pour le Sénégal. maintenant que dellusiwaat nga Parti démocratique sénégalais que va devenir sa mouvement. Mm. ah dara dara mën naa ko jox ñeneen ñu yore ko. Mm. mais du seey fenn de. ah du seey fenn ah, non non du seey PDS déedéet déedéet ministre de la pêche le mouvement mi ngi fi woon doon ak dem am ses activités. Mm-hmm. def nañ fi conférence sur Rufisque def nañ ko chambre de commerce bu Dakar le mouvement va continuer à agir c' est un mouvement citoyen. Mm-hmm. loolu rek la à l' époque su fekkoon ne on avait les moyens nous aurions pu le transférer mënoon nañu ko parti politique. Mm-hmm. mais fi bu doon sama sago man du ma dem di agrandir la liste des partis politiques qui sont plus de deux cent quarante dans ce pays. Mm. mënuloo ci cité dix yoo xam ni xam nga leen ñu ngi ci activité. mais man euh, euh, yàgg naa dégg waa PDS en tout cas Oumar Sarr en l'occurrence muy muy muy wax ne euh, moom gisul nécessité en tout cas ci contexte politique actuel gisutul nécessité pour. libéraux yi ngeen ngeen créer ay ay ay mouvement. déet man man mouvement bi dafa antérieur jiitu na sama génn PDS. est ce que amul rétroactivité. <laughs> c'est le ah, terme non non <laughs> ah, mouvement bi ñeneen ñoo koy toppatoo rek man je continue mes activités politiques. mais kon kon daal yow nekk ci bopp mouvement non non non doo def ñam ah. ne ñu koy. mën nañu mais man xam nga monsieur mi sànq junj nga ko ah euh, bu la neexoon créer euh, euh, beneen parti parti politique. benn énième parti politique ah ci masse bi fi nekk nii quoi donc foofu tam jàppale nga ñu ndax ñun dañoo sonn ci ginnaaw nga jóg créé benn parti politique mais. Euh, man dama ne yow ak sa vécu ba tey ci laa dellu sa vécu ah euh, macha allah euh, expérience internationale bi nga am expérience politique ba ak expérience gouvernementale tey aujourd'hui kenn mënul weddi ne homme d'état kon it je pense que aujourd'hui am nga stature Euh, boo xam ne war na laa mën a may euh, comme sa ñoñ yi nga briguer euh, li nga xam ne mooy mooy mooy suffrage universel jàkkaarloo ak président Macky Sall donc aujourd'hui pourquoi yow xalaatuloo woon moo xam créer parti politique wala da ah, moo xam daal ban format nga jël exactement pour jàkkaarloo ak président Macky Sall au lieu que nga ngay delluwaat di bootuwaat ci ay Umar Sarr ak yooyu parce que dépassé nga fi ñu toll nii ku ku lay jiite maa ngi lay gërëm bu baax boo nee dépassé naa tey fu fuñ may jiitee mm-hmm. bon nañ bàyyi ci loxo yàlla rek mm-hmm. yàlla moo xam fu mu jaarale jaamam bi su ne damay dem euh, dellu PDS ma dellu PDS ba mu war ma cëral ëllëg mm-hmm. moo xam lan la may cëral fa laay jaar mais du ma jóg ni damay song Macky wala damay sàng yoro wala faate déedéet ma rek ni war naa dellu jaar foofule parti politique pour nga yore ko dafa metti li mu laaj li mu yaaj man yorewuma ko ay moyen la tigi tigi tigi boo gisee tey les deux cent quarante partis yuy su wax mënuñu dem parce que tout simplement ña fa ne dañ jóg rek bëgg ils sont cinq six nañ créé parti cinq six nañ créé parti man du loolu bu ma doon créé parti politique dans les quatorze régions dinaa fa am fu nekk une représentation département bu nekk dinaa fa am représentation c'est pas donné à tout le monde. oui d'accord alors euh, euh, bu ñu Euh, est-ce que euh, am nga contact ak maître Wade depuis sa euh, retour bi ou pas. pas pas pas encore. Mhm. ñi am contact ak moom mooy les Modou Diagne Fada Lamine Thiam ak Omar Sarr. Mhm. yëg na ni di dellu si waat na ci parti bi. Mhm. je pense peut-être mu woo la sax. ne la ah. bienvenue ak yooy maa ngi déglu boog comme yow ah. xam nga ci loolu maa ngi déglu mu woo bu amee rek nga woo ma wax ma la ko yëgal <laughs> alors monsieur ministre sànq yaa ngi koy junj également te ñu bëri boo nee xoolee si caam loolu la ñuy xalaat tamit ndaxte euh, dëgg yàlla ñëwti ñëwtee nañ la fi ay ay ay ay weer ci licence de pêche yi licence de pêche yi euh, Greenpeace euh, yeew na fi suba daal ne yow daal Euh, euh, toogaale nga randal nga daal toll ci 7 milliards 500 millions de dollars loolu moom ñeme ma sa tekki ñaata ñaata milliards xam nga man ay chiffre moom xam man ndóol maan laa man bu weesoo 100000 francs rek man man def naa complètement <laughs> damay bëggee sama cerveau bay bëggee. donc loolu xaw ma 7 7 milliards 500 millions de dollars moom ñaata la ci CFA lu kon lo ci nga toog nii jamono jii. loolu boo ko transformé en CFA. c' mm. est trois mille sept cent cinquante milliards. Forna, de francs CFA. loolu dara fayu ko for na. plus moo ëpp budget Sénégal. moo ëpp li Macky Sall jëlee. Mm. Paris ci groupe consultatif bi. ci nga toog nii yow ah. waaw ndax ci laa toog ah. yii man defe naa ne yàlla bëgg na bëggeel goo xam ne xaalis boobu du ma ko may ndax su ma ko yàlla may daf ma wóor su ma dee daf ma yóbbu safara eh, ndax loolu ci alal mm. dafa jaaduwul ah, doomu aadama am ko eh, eh, ëpp na mm. dafa ëpp Macky mm. il est revenu avec trois mille sept cent vingt neuf milliards man ñu ni détourné naa trois mille sept cent cinquante milliards en six mois <laughs> mais c'est pas sérieux moo tax dossier boobu waxatuma ci am na ñoo xam dañoo bëggoon détruire rek démonter seen kabal. fenn yi fenn wax a wax a wax. mais léegi yaakaar naa ni explication yi ma joxe dans le passé. ku am xel tuuti rek ràññee nga ni lii ay fen la complot la woon. mais man pourquoi ko ñu tëb tëb ñi rek waxal lu mel mais parce que dafa amoon ñoo xam ne bëgguñu woon pêche boobu ñu doon def. may leen dañ ko def def nañ ko ñu yóbbu ko ci trésor mais ab Abdou Diouf def nañ ko fi pendant huit ans ñu géré ko. ils ont bien fait Abdoulaye bu ñu ñu def ko am waruñ ci wax dara dañu war a bàyyi sant yàlla dugal nañ ci trésor bi xaalis tout le monde en a profité. kon yow daal. sant sant yàlla set wecc. pourtant man man man man ba ma déggee euh, weccet yu bëri dama ne waaw man xanaa xure si yee baax ba nga xam ne sëriñam yee dëgër timikaay bee fort ba gars yi fàtte ko ci traque des biens mal acquis bi pourquoi yow dégguma la ci traque des biens mal acquis. monsieur le ah, non parce que dafa yenn yi caaxaan la. boo waxee leen boo bëggee trois mille sept cent cinquante milliards ku ko dégg dinañ ni ñii sa ne va pas ci six mois de paix. ëpp na bu doon loolu. Hmm. fekkee ni mën nañ am loolu détourné ko. yónnee au trésor huit cent cinquante millions. Hmm. di delluwaat trésor un milliard cinq cent millions. Hmm. nga loolu nga détourné à côté trois mille sept cent cinquante milliards mais jarul ñuy def leneen jarul Macky di wuti leneen dañoo peuple Sénégal nañ tourné ñëw napp bu ñu nappee dinañ am xaalis bu dul jeex. wallaay wallaay. lii la mais yéen ne caaxaan la. Ah, alors euh, monsieur le ministre émission baa ngi dem temps bi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi dox ndax yow waxtaan bi neex na lool macha allah ndax. Euh, yow moom defe naa soxlawul sax ay coupé coupé collé ndax yaa ngi. Ah, euh, waaw macha allah alors monsieur le ministre président Macky Sall ak gouvernement am Euh, euh, célébré na semaine bii ñu weesu euh, deux ans moom d'exercice du pouvoir yow sénégalais bi nga doon citoyen bi nga doon ak acteur politique bi nga doon tey deux ans Macky Sall mënuñoo def bilan bi yëpp ndax du émission bi du ko ni mate tey lan nga gën a jàpp ne fii président Macky Sall am na fa la moyenne ci boo koy noté fële dëgg-dëgg daal ma nga ci ligne rouge ba lanterne rouge la ba plutôt waaw li li ñu mën a wax ci am na fa plus que la moyenne ni nga waxee. Mhm. mooy ci affaire loyer yi par exemple la baisse des loyers mhm. ñëpp saluer nañ ko man li may ñaan rek mooy nañu nañ ci yokk beneen dispositif. Mhm. législatif et réglementaire nañu adopté loo assemblée nationale ñu voté fa benn loi benn loi boo xam ne day créer un impôt sur les bâtiments vacants. loolu mooy di ku am sa tabax parce que état bi nee na wàññi leen loyer de vingt neuf pour cent yow nga bañ génne say locataire tout simplement tëj ko parce que ànduloo ci état bi ni dina ko tëj maa sam batiment bâtiment dañu war a créer def leen loi boobu ñu war a jël sur les batiment vacants mooy ku tëjati sa batiment parce que dax nga nit ñi nga fay impôt buñ ko defee dana baax trop parce que doo tabax état doo tabax batiment nit ñi du ci dugg di utiliser ndox di utiliser courant état di ci bénéficier nit ñi di la fay location bi état di ci bénéficier parce que état nee na wàññi leen loyer bi rek nga ni déedéet man dinaa génn génne yéen ñëpp ma tëj bâtiment man maa ko moom dëggalee yaa ko moom mais na nga fay état impôt boo xam ni ça porte ci lii nga bàyyi bâtiment bi mu vide kenn nekku ci buñ ko defee léegi nga gis kenn dootul bàyyi bâtiment bu vacant mm-hmm. te buñ ko defee non seulement dañ ciy fay état bi mais ci xaalis bi ñuy fay nañ ci dini jox ci maire yi mm-hmm. commune d' arrondissement yi. Mm-hmm. léegi. Euh, euh, euh, benn ngoog. benn ci li ñu def. am na CMU. Mm-hmm. kooku aussi je pense que dimbali na malaat yu bare. Mm-hmm. bu dul CMU y' a les bourses familiales. yooyu baax na yooyu baax na. léegi lan moo lan moo fa bon mais li li fa li fa xaw a ñagas tuuti. li fi xaw a ñagas daal mooy l' emploi des jeunes. wax nañ ci des chiffres. faramineux faramineux faramineux waaw te gisaguñu dara ah, dëgg la voilà kooku. Mm-hmm. je pense que daal war nañu góor góorgóorlu. Mm-hmm. régler loolu. Mm-hmm. ñaareel bi wax nañ fi aussi affaire yoon yi. j'espère que Macky Sall xaalis mu jëlee Europe. su fekkee doxal nañu. loo xam ni bailleur de fonds yi. kontaan nañu ba xaalis boobu ñëw. xaalis bu ñëwee dinañ ci liggéey mais ñu ngi koy séentu am na yeneen attente des populations. ci affaire mbay agriculture. bay mi mhm. man ci àll bi laa dëkk ci biir baykat rek laa dëkk mhm. bu ñu toogee ba léegi ay baykat seen gerte jënduñu ko ñu defal leen ay notes kooku metti na trop fii léegi ñaari weer nawet baa ngi ñëw mhm. dañuy mujj di bazarde seen gerte ci ay luumo te ce n'est pas normal ku bay genn wàll ay weeri weeri weer séentu nga bu waxtu jotee nga jaay sa gerte am ci mais loo ko jaay nga koy bazarde ci ay quatre-vingt-dix francs cent francs alors que gerte gi war na dem ba cent cinquante cent soixante francs de kilo jëm deux cent francs kooku jaaduwul. d'accord kooku métti na trop. Mhm. ñetteelu leneen loo xam ne mën nañ ko wax. ci attente population. mooy courant bi. sa kër gi moom def nañ fi. yéen a ngi fi depuis trois heures. <laughs> te yow depuis treize heures ñun depuis waaw ba léegi ñuy coupé courant. Mm, ba léegi ne amuñu courant nañu nañu ko aussi war nañ ko seet. Mm, rupture bi ñuy wax. courant bi nañ ko xool nañ ko bay te ma nee nga man tamit te ñu wàññi ko man man j'ai des factures de trois cent ah, quarante trois cent cinquante mille. te dama koy wax quatre cent trente cinq mille quatre cent cinquante mille fii ci kër gi. Mm-hmm. man sama jabar sama ñaari doom. benn benn gardien ñaari nit. xaaral nga may ay ay magasin aw ma fi dara aw ma GIE. Mm. aw ma fi PME nii PMI. te amul ay locataire tamit amul benn locataire amul boutique tamit. boutique lan fii ci Cité Faye Sall bu amul benn boutique moo nekk fii ci côté bi benn rek du ma jaay glace du ma jaay ndox du ma jaay radi glace mais on ne peut pas comprendre que ñu may fay loo plus de 400000 francs. xëy na xëy na dañ ne euh, mu xëy na euh, ah, ah, ah, man boo waxee loolu dafay garaaw parce que c'est à la tête du client. Mm-hmm. diw rek milliardaire nañ ko dëgg temps nañ ko teg temps nañ ko mm-hmm. man li ma jaaxal jóge naa fi dem Paris. pendant 4 mois et demi 5 mois. Mm-hmm. pratiquement kenn nekkul ci kër ñett nit ñoo fi nekkoon. ñu fay loo ma 437000. fi ma ne bàyyi naa di jooy Sénégal dama ko jooyee jooy ba sonn sama dernière facture yi tourne autour de trois cent mille francs ce n'est pas normal dama woon xaalis mais soo woon xaalis damay def fii solaire solaire coupé ak Senelec. waaw moo gën nañ dañ seen courant yi. waaw moo gën nag Senelec moom dëgg mais ndox mi aussi ndox mi cher na ëpp na. Ah, dëgg la ndox mi ëpp na. Mhm. yi yii daal population yi doon nañ attendre euh, gouvernement bu bees bi. ci deux ans yi ñu indi ci coppite. Mhm. Macky Sall nag war nañu reconnaître une chose. Mhm. ci liggéeyu Ablaye Wade bi lu mu ciy terminer rek dana ni ah Ablaye Wade moo ko fi defoon maa ko ciy félicité ci loolu mais Ablaye Wade li mu fi def a ah, jafe nit def ko de tout de suite mhm. d'accord alo monsieur le ministre euh, ñu ñëw euh, ci beneen euh, sujet seen rek nee naa fatt nañu waaye xaaram rectifier sax bala ñoo bala ñoo dal sama kaw <laughs> ndax hmm. seen <laughs> rek vous êtes beau et vous êtes gentil wóorul di bala ñoo jël sama facture ba ma ni fëgg ma fi ay 1 million ñoomin seen la dañoo mën a defante waa Sénégal xam nga ñëwee ah, ma leen waaw ah, wóorul xam nga man na aw aw ma doole Sénégal vous êtes très gentil ah. <laughs> man kat damay bañ ñu ñu fëgg ma fële ay 1 million 2 million ba ñu dëjati sama compteur ba <laughs> léegi boobu yoon nag da nga koy def da nga koy photocopie yónnee ko président Macky Sall nga ne ko mi ngi nii benn émission moo tax ñu yónnee ma un million de facture ndax danañ ma faa yokk def nga vingt-deux mois dafa bunt ba kenn ubbi lu la wax ma la ak man mi nga xam ah, ne su ma defee lettre kenn du ma faale c'est différent yow vous ne gênez personne gêné wuloo kenn xëy na man su ma dem buñ ma kii ma day may gêné ah man loolu rek ah, la dama xaw a rëy làmmiñ de ma duñ ma xaw a ragal fee ah, kon kon nag baax na kon nag yow bàyyil ma wax ji ma wax man maa ko géré sax maa nga ñu engagé <laughs> jeex na alors monsieur le ministre ñëw si beneen sujet mooy euh, euh, euh, taf taf rek yaa ngi dégg relation yu yu yu heurté wala ba des fois yu xaw a bizarre yu président Macky Sall di am ak ay alliés jamono yi euh, euh, ki nga xam ne moo fi toj mooy Moustapha Niass bu alliance pour la euh, alliance des forces du progrès moom mi nga xam ne dëgg-dëgg daal jël na partem boobu di AFP jébbal ko rek président Macky Sall te jamono ji tamit ñu bëri ñu ngi jàpp ne am na daal ñoo euh, ay frustration yu mu créé euh, euh, de part d'autre ndaxte bu dul AFP ak parti socialiste parti socialiste jàpp ne ñoom ñooy dëgg-dëgg ay alliés yu mag a magam yi te ñaar ñoo ñëpp comme par hasard seen parti ya xale yi ñoo bëgg a dem mag yi di leen téye ba tax na am na ñuy xalaat ne plus tard est-ce que du dem ci éclatement ba nga xam ne kii di Malick gàkku ma nekk fële ci AFP xëy na mun naa joxante loxo ak xalifa sàll nag dëgg-dëgg mi nga xam ne mooy mooy maire Dakar euh, euh, nekk tamit parti socialiste yow noo ko jàngatee. man duma ci sore ci jàngat bi. Mhm. ndaxte bu dee Moustapha Niass Moustapha moom mooy chefu parti moo ko moo mhm. mooy avancé moom ba léegi moom moo yaakaar naa ni moom moo xam lu baax pour parti nu muy doxalee ci parti ak alliance ak nu muy doxalee relation ak Macky Sall kooku moom moo ko xam su fekkee dina indi ay dégâts moom moo xam je suis persuadé que Moustapha na bu baax bi muy wax wax yi mais certainement ñii di wax ci rajo yi ak télévision yi di ko ŋaññi ci loolu. te ñu bokk moom parti wala bokk ñoom parti ñoom am nañ seen raison mais man duma ci wax. du ci wax moom moo xam lu tax mu def def na ko. xale yi yàkkamti nag. bëgg bàyyi ko. wala bàyyi parti socialiste dem ànd dem frayer une troisième voie parce que vous avez l'AFP vous avez cité le AFP le parti socialiste ñoom ñu bëgg a jaar ci diggante bi mm-hmm. et eh, ñoom ñoo seen seen affaire la mm-hmm. ay ils sont plus jeunes que nous mm-hmm. madame monsieur monsieur yow dafa mel ne gëmuloo alternance générationnelle gëmoo ko ci parti man li ma gëm mm. mooy ndogalu yàlla le décret divin yàlla bu ne suba Aïssatou Diop Fall dana ne président de la République kenn mënu ci dara boo koy nekk ak quatre-vingts ans quatre-vingt-cinq ans quatre-vingt-dix ans da ko nekk loolu gëm naa ko. Mhm. nit da ngay am sa biddéew yàlla lu mu rëdd sa jë rek loolu mooy am kenn mënu ci dara. d' accord alors euh, beneen bi euh, mooy euh, ba tey ci parti politique ah wax nga wax sax si première partie émission bi mais dama bëgg ñu ñu ñu ñu ñu gën ko fësalaat ci deuxième partie bi mooy wax nga ma ne li nga xam ne nekk na sa déception. Euh, euh, daal euh, ci sa sa sa sa carrière politique mooy en 2002 ah ba ngeen di ba ñuy def donc. élection locale élection locale yi. donc yow nga gagné conseil régional ba ci kaw Cheikh Abdou Khadre Sissoko Euh, euh, mi nga xam ne parti socialiste nekk waaye mu am ay complot ci biir sa parti ba tey di parti démocratique sénégalais ñoo xam ne dañ la ne mayal euh, Cheikh Abdou Khadre Sissoko mu jàll ndax moo la mag loolu man man c'est c'est c'est hallucinant ci man. ma corriger tuuti rek. Mm-hmm. du mayal xam nga yaa ngi wax am na ñoo xam ne bu ma delloo tey ci parti mm-hmm. PDS dañu may xeex. Mm-hmm. lu nekk ñi ma koy wax. mais ça ne date pas d'aujourd'hui ci temps boobule 2002 bi ngay wax conseil régional ma battre ci Cissokho de mhm. am naa vingt cinq voix moom mu am ñaata moom mu am seize voix mais ci parti bi la nit ñuy jëndi xaalis PDS PDS jënd samay nit nii fexe leen ba xuuri si ba njàll ñu jënd ay nit ñu dem tafu ci Cheikh Cissokho ñu voté ma am vingt une voix mhm. Cheikh am vingt et une voix trois fois mhm. par texte yi ni ku kuy gën a mag mooy jël après trois votes sans partage sans ñu départagé ñu trois votes sans être départagé ki gën a mag mooy jël Cheikh mooma mag Cheikh a pris 2002 mhm. 2002 ba 2009 tegaatuma sa tànk sama tànk conseil régional bu Tambacounda mhm. lu dul di ñaanal Cheikh yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram rek mhm. ba ñu dajewaat 2009 daje nañu mais je l'ai battu 43 voix contre 6 Sénégal ba Sénégal daj amul benn président conseil régional bu ñu fal mu am 43 voix man rek maa ko fi amoon kooku je l'ai pour le parti yàgguma fa toog tuuti la Wade ni ma naa dugg ci gouvernement bi man maa bàyyi jël keneen teg fa kañ fa teg mooy Saliou Balde man maa liggéey def lépp jënd ay nit sax pour mu jàll Saliou Balde jënd des voix je le dis ici j'ai acheté des voix j'ai acheté des consciences grawul déedéet non jënd des voix yi kooku si ça se fait ça se fait même boo demee dans les grandes puissances loolu sur na non ne parlons pas bëgg nañ sama bëggoon jàll na ah. par tous les moyens dama bëggoon mu jàll rek te ba ma ko yow Abdoulaye d'accord na ci. ni ko bëgg naa mu ne ma koo wóolu ma ne ko Saliou Balde. Mhm. mu ne ma dina ma ne ko dina ko mën président bay mu jàll. Mhm. ma jàppale ko ci ni ma ko mënee. l'achat de conscience politique lañ ko fekk. amul lu ma ci deful pour mu jàll jàll na tey moo nekk Tamba comme président du conseil régional. ñoom achat de conscience tamit doy na wax achat de conscience gis nga ne euh, je me rappelle en France euh, ñu mel ne ay euh, ay ay ay ay Balkany ak yooyu loolu lañ leen di tooñee c'est pas grave kon achat de conscience. wala politique daal moom. nañu on se bat avec les armes. tubaab yi daal nee nañu. <laughs> la fin justifie les moyens. bëggoon naa Saliou Baldé nekk président conseil régional jàppale ko am na ñoo xam ni ba ma leen gisee nii leen mhm. kaay leen ñu voté dañ may da nga may jox nangam. Mhm. mais nangam boobu dama leen ko jox pour mën a jàll. d'accord alors euh, euh, kooku beneen euh, beneen débat la maintenant aujourd'hui monsieur le ministre. Euh, acte trois bi xam nga yaa ngi dégg ñu koy wax lu lu bëree bëri acte trois bi euh, lan nga gis ne yow mi nga xam ne fi mu ne euh, je je le pense candidat nga ci mairie bu Tambacounda bu ban man Makukuli Banta laa dëkk Makukuli Banta waaw d'accord ci département Tambacounda la mais Makukuli Banta laa dëkk d'accord kon yow yow yow yow yow yaa ngi. maa ngi milité Makakoli Banta. Makakoli Banta kon communauté ok alors la nga gis ne acte trois bi. Euh, euh, c'est bon à prendre euh, si contexte bi ak tamit li ci li nga xam ne dañ ko war a jeter. c'est c'est long l'acte trois su mhm. fekkee dama ci war a disserter. tuuti rek parce que temps bi dem na tuuti rek. Mhm. li ma ci li ma ci neexul daal mooy la suppression des conseils régionaux. Mhm. parce que ba fi may wax yow je suis conseiller régional de Tamba. gagné woon naa en 2002. waroon nekk président bi ñu complot ba ma ñàkk ko. 2009 gagné naa ko jox keneen mu toog fa. conseil régionaux yi am nañu njariñ dans les pays mhm. il quatorze régions c'est différent de ce qu'on appelle les pôles de développement ab Macky Sall ñëw na fi dem na Ziguinchor mhm. gis nañ ko télévision bi mhm. dig na leen lu bare loo xam ne bu ñu ko defee dina développé mais ñun sur le plan administratif région bu ñu bëggee mu am cohésion dañu war a bàyyi conseil régional bi mu taxaw yow daal conseil régional daal pour yow. waaw dañ ko war a bàyyi mu continuer. ça ça va euh, monsieur ministre euh, fu ñuy fu ñuy euh, jeexalee émission bi mooy li ma la junjoo sànq et li ma gëm la gis naa sax ne ci journaux yi Modou Diagne Fada wax na ko saluer na sa courage parce que il faut quand même être courageux pour poser acte bi nga def mooy. dellu si waat parti démocratique sénégalais. dañ ma jël si. ñu jël si la. voilà ma nangu. nga nangu nangu boobu rek mooy courage. waaw ndaxte euh, ñëw euh, euh, acte boobu daal man rafetlu naa ko te lool rek ci man nekk na loo xam ne nii lu lu jar a saluer la te ku jar a fonk nga ci ci acte boobu. Euh, te euh, euh, may fàttali ko tamit ne actu boobu c'est pas la première fois quand nga wane courage yu mel noonu contrairement à ce que beaucoup de gens disent ku yàgg am ku yàgg assumer ses positions nga ndaxte on je me rappelle ci loi Ezzan bañ ko fi bëggee def suma ma juumulee yow rek yaa député PDS boo xam ne da ngaa voté contre Euh, tey j'imagine que euh, euh, ça n'a pas été facile cette décision-là. Oui, ça n'a pas été facile mais j'ai eu quand même comme vous dites le courage d'expliquer à l'Assemblée nationale lu tax ma contre-proposition de loi exan boobu la. et le temps a fini par me donner raison. parce que là boobu dafa tombé en désuétude fàtte nañ ko. mais mais mais mais monsieur le ministre bëgg nga nga nga wax ko tuuti rek mooy. ndax PDS à l'époque peut-être comme parti yu bëri aller contre la volonté du maître. en l'occurrence euh, le chef de parti euh, dina am ay conséquences yoo xam ne pas toujours heureuse euh, pour ki ko ki ko ki ko def yow yan jafe-jafe nga ci am ak xëy na ci parti bi neexul woon ñëpp décision boobu nga jël ah, bëgg naa nga wax nga rappale ñu yan yan métit nga ci am jafe-jafe yi ci courage bi ngay am mhm. ak day fekk ni da nga am conviction au départ surtout boo amee conviction boo amee loo gëm amatoo looy ragal gannaaw yàlla ak yonent bi am na lu ma gëm ba may dem ci Ablaye Wade wax naa yàgg di wax man je suis wadiste je ne suis même pas PDS. Mhm. défendre naa fi Ablaye Wade ci noo xam ni benn ministre défendre ko ci Sénégal. ñëpp xam nañu loolu. su ma jëlee sama position nag ñu may xeex ngir position boobu du ma ci def attention damay continuer rek. Mhm. mais Macky Sall mii li may xeex ak moom fii ci dëkk bi sur le plan politique ci ministre PDS amul kenn ku xeex ak moom. muy fii di assemblée nationale mais c'était sur le politique mais jeex na jeex na. yaa ngi dégg ñuy wax la guerre de cent ans en Europe cent ans ñuy xeex di xeex mais dañu xëy mu mujj jeex fii aussi xeex bi dafa war a jeex ko bëgg nag ci PDS ni dana continuer di xeex Khoureychi bu la neex nga continuer di ma xeex mais man du ma déranger damay avancer rek bu neexee yàlla yoon tëdd magnifique euh, kon euh, yàlla nga avancer si jàmm ak salaam monsieur le ministre Khoureychi euh, Thiam sa sa émission jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo ak sénégalais yi waaw man d'abord dama la war a gërëm bu baax mm. parce que nii nga def nii ñëw laaj ma ma waxtaan ak yow ci sama jaar-jaar sama dellu si PDS na ma def ministère de la pêche am na loo xam ne sax laajuloo ma ko mais soo ma ko laajoon dinaa ci kontaan lool bilan bi ma am au niveau du ministère de la bi bilan bi danaa wax ni que au niveau ministère de la pêche trouver naa benn financement mm-hmm. hollandais néerlandais des Pays-Bas mm-hmm. de milliards pour le désensablement de l'embouchure fleuve Casamance. Mhm. du ñëpp ña fa jaar ñoo am lu toll noon le vingt et un milliards. Mhm. ñi ngi ko commencé démarrer. bu loolu passé am na fi benn société bu doon SNCDS la société national des conserveries du Sénégal mu am mille cinq cent emplois mais bu doon dee maa fi dem Corée benn yoon ñaari yoon société boobu ton lay toppatoo. Mhm. maa dem négocier ak société bi gën a mag ci Corée bi toppatoo affaire u ton conserverie ba ñu d'accord ni dañ injecté dix milliards ci société bi ñuy créé fii Sénégal ñu dellu si sauvé nañu emploi yooyu loolu passé am na li ñu fi wax complex frigorifique li ñu fi tabax ci dëkk bi bi ma ñëwee fekk naa projet bi Souleymane Ndéné bàyyi ko fa mais man maa ko réalisé quinze complexes maye quinze camions frigorifiques pour ñu dox te fu ci ne bu dee Touba bañ koy posé le xalif moo ñëwoon Serigne Bara naa ko yàlla yërëm téexanu yàlla na yàgg yokk leeram moo ñëw posé première pierre ba mu paree l' actuel xalif dafa yónni Serigne Bass Abdou Khadir mu ñëw inauguré ko ñu may leen camion frigorifique yëpp def na ñooñu la même chose Tivaouane Abdoul Aziz Sy junior moo ñëw Serigne Abdoul Aziz ñëw ci pose prière bi ñëw ci inauguration bi def nañ ko dans les quinze régions bi ma fay jógee négocier naa avec waa Inde ñi nga xam ni ñoo ko financé un financement de dix neuf millions de dollars muy neuf milliards cinq cent millions pour ñu continuer projet bi bi loolu passé ba ma fay jógee négocier woon naa waa Corée pour ñu préparer ñu tabaxal ñu ñaari bateau benn bi de 200 places 200 passagers buy def Dakar Ziguinchor beneen bi pour le fret ay camions ak i marchandises loolu bu ñu koy def c'était pour dëgëral pêche bi. ñe li mujj nag ki li may mujj négocié naa ak Turquie un projet malheureusement malheureusement simple projet la woon pour ñu financer ñu la construction de 15 de cinq bateaux yoo xam ni jën yii jaar ci fii suñu géej gi te mënuñu ko napp 25 bateaux yi di ko napp. dañ ko doon jox Sénégal yi pour ñu construire cent cinquante bateaux industriels ku ci soxla boo bëggoon ci bateau yi sax na nga mën rek di fay par tempérament négocier na sirne moo koy ku ñuy wax Samba moo ko yore pour ñu construire trois mille pirogues modernes yii yëpp def naa ko au niveau du ministère de la pêche bilan boobu dëgg la bariwul mais bilan boo xam ne bu sotti woon mm. surtout projet yu mujj amoon dinañ am pêche boo xam ni ce serait une des une des pêcheries les plus modernes de l'Afrique de l'Ouest. magnifique <laughs> léegi euh, je pense que euh, li nga li nga li nga wax noonu euh, c'est c'est c'est c'est important et que tamit comme dañuy yàgg naa dégg ñuy woy continuité de l'État actuel ministre de la pêche xëy na fi nga teg sa tànk. moom dina ko dina ko war a jéggi ah, dox ci leneen ndax xam naa loolu nga xëy ñaan voilà loolu laa koy ñaanal kon ñu bàyyi la nga continuer sa tàggatoo monsieur ministre maa ngi ñaanal ministre bi rek mu hmm. continuer projet yooyu la hmm. ndaxte nous nous aurons une industrie hmm. magnifique sur le plan de la sous-région et dinañ am du matériel des bateaux yoo xam ne mën nañu longer toute la côte depuis le Maroc jusqu'en Angola fu nekk ñu mën fa pêcher ak les accords ñu war a ak dëkk yooyu la li may tàggatoo ak Sénégal yi mooy damay ñaan yàlla d' yàlla musal ñu ci feebar yii ñuy dégg Guinée ah, Ebola bii <laughs> virus Ebola boobu ñoom nañ ko limité foofu ci mm. frontière bi rek mm. yàlla musal ñu ci mm-hmm. ñaareel bi may ñaan yàlla jàmm am Casamance mm. parce que ñëpp moom lañu bëgg ñëpp moom la dox mm-hmm. bu jàmm amee Casamance mën nañ fa jëlee lu bare mm-hmm. may ñaan aussi richesse yu ñu am minière yu ñu am Sénégal oriental lii di fer lii di or lii di uranium lii di marbre ñu mën ko développer mais maa ngi ñaan président Macky dama koy ñaan depuis 2000 mu duggee duggee mu am Abdoulaye Wade que ñu bitumel ñu le tronçon Maka Koulibantang Koussanar 36 kilomètres Maka dafa am dafa nekk dëkku sëriñ yàgg naa di ko ñaan gouvernement bu ñëw ñaan naa ko sottiwul am naa yaakaar ne Macky bu ko diggee dina ko def waaye xanaa da nga tàggatoo ci tukulóor wala. fotaani fotaani wolof bi ah. doy na soo bëggee nag invité ma ci tukulóor. <laughs> loolu moom kooku moom il faut dem jàng ji ko monsieur <laughs> Youssou Thiam ñu lay jaajëfal euh, di la di la gërëm kon euh, ci ni ñu dalalee dëgg yàlla équipe euh, um, face to face yëpp nga dalal ñu bu baax si sa kër macha allah yombal ñu bu baax a baax a baax liggéey bi. ñu la ciy jaajëfal di jaajëfal tamit sa waa kër ñu ñu fekk si fii. ak i tamit ñi nga xam ne ñoo lay seetaan sa mbokk yi di nuyu tamit waa Tambacounda sama rakk foofu la juddoo donte xamuñu fa dara mais fa la juddoo. te kon sa su may wax Tamba rek. sama xel lay dem bu baax a baax a baax euh, euh, ci ci loolu hmm. di nuyu tamit sama rakk jooy bëggul wax turam ndax bëggul ñu xam ne maay magam hmm. kon <laughs> foofu laa koy yemale di nuyu nag ñu bëri bëri lu bëri bëri yéen ñi setaan euh, face to face di leen jaajëfal tamit ci teewlu bi di remercier ñi ma àndal ak sama équipe bi comme d'habitude sama doom ji ma jàkkaar lool jatu njaay tey nag moom laay jëtal ndax damaa am gan gu mag a mag a mag tey ci ci ci ci face to face di di Aziz Soumaré mais mooy monsieur Son hmm. am moo tax son bi moom tey dafa ma leer ne du karaj karaj ndax mooy mooy patron ba wute naag Pape Sila moom euh, euh, euh, ma ngay wuti ji liggéey di di di di di di nuyu tamit na comme d'habitude rek sama xale yi ah petit ndooy ndooy maali maram ah, ci ci camara bi ah ak bu keneen kii ku ku doy waar kooku Mamadou Dia ah ak ku desati sax ci xale yi ma kenn defe naa ah euh, ñëpp ji mat na ak itamit ci montage yu nag euh, la grande diva Adja Diallo mbokk yi beneen dimanche beneen face to face